salaamaaleykum mbokk internet yi tey jii rek ñu dellu si waat fii si seen site euh, Jolof sport et santé ngir yëgal leen euh, li nga xamante ni euh, mooy seen fiche actualité yu gën a fës bu sunu làmb si bés bi tombeek mercredi 29 décembre jàpp atub 2021 waaye mbokk yi nag gën a fës si xibaaru tàggat yaram rawatina sunu làmb nekkul dara li nga xamante ni mooy combat bu dox si diggante kooku di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier bu Mbour ginnaaw ginnaaw nag ba mu defee li nga xamante ni mooy euh, open euh, press am moom Balla Gaye numéro 2 foofee ca Guédiawaye ginnaaw mu jàmmaarloo ñi di euh, presse bi ngir dénk yenn kàddu rek kookee di bombardier bu mbuur waaye nag bombardier bu mbuur moom rek tontu na kooku di Balla Gaye numéro 2 ginnaaw ba mu defee moom itam loolu di open press am foofee ca mbuur ca stade Caroline fay moom nag di bombardier moom nag nee na am na confiance loolu pour daan kookee di Balla Gaye numéro 2 nee na jamono ji sax ah, la muy yëkk kiir ah, daan ah, Balla Gaye numéro 2 yëgu ko si combat bay rek ñu génn moom Bombardier moo ko wax ginnaaw ba mu amalee li nga xamante ni mooy conférence de presse wala sax lii di open presse am waaye nag mu des ñaari fan rek ngir ñu doxal seen combat contre Balla Gaye numéro 2 ak kookee di Bombardier moom Serigne Ousmane Dia ñu ko naan nag Bombardier moom nag mu organisé woon loolee di open presse démb nag ca Mbour ca stade Caroline fay moom nag ginnaaw ba ko supporter sax wala amateur rek doon a xaar foofii ca Mbour moom bombardier ginnaaw ba mu yegsee rek 18h35 lay yegsi foofii ca stade waaye nag dafa toog ci benn dafa toog ci benn 4-4 am bu noir sax la toog ba 19h05 moom rek si wàcc ca oto ba li ko li li ñu mel nag kenn xamu ko waaye nag kii di bombardier ginnaaw ba mu wàccee si oto ba moom ku mu àndal nekkul kenn mu dul xaritam boobu yéen ñuy woowee Moussa Diop Los moom nag. ba mu génnee rek moom bombardier daf li nga xamante ni mooy show ca stade bu Caroline Faye bu Mbour moom bombardier yëngal na ñoo ñi di supporters yi waaye nag supporters yi rek euh, amul lu ñuy wax lu dul deux zéro bi foo toll rek di ko dégg maanaam euh, Balla Gaye dina daaru dina daanu ñaari yoon si kanamu kooke di euh, bombardier bu Mbour mu doon loo xamante ni lu amateur yi sax wala lu fans Balla yi duñ deux zéro de zéro rek ka digg fépp ci mbuur foo dem rek ñoom dafa mel ni kat dañoo mel ni seen euh, kat boobee di euh, bombardier ndaxte nag nee nañ euh, lii di Balla Gaye numéro 2 dina daanu ñaari yoon si kanamu kooki di bombardier waaye nag du ñu foofu kii di mbay booy mbay booy moomee sax nga xamante ni mooy coach bu bombardier bu mbuur moom nag nee na pression bi warul nekk si bombardier nee na pression bi rek si Balla Gaye la war a nekk ndaxte moom rek moo ut si li nga xamante ni mooy revanche ndaxte nee na uh, moom uh, Mbaye Boye nee na nag combat bi ñoom uh, pare nañ ko fépp pare nañ ko si bépp anam nee na lu kii Bombardier indi rek loolu doyul lu Balla Gaye indi rek dinañ ko si fekk si nee na nag booy seet li ñuy préparé jamono ji rek mooy quelque contacts contacts yooyu rek nekkul lu dara sax amuñu contact waaye nag pour récupération rek lañ koy def moo tax mooy temps de récupération bu Bombardier di am avant ñëw dugg si combat bi rek la Mbaye Boye wax mu doon loo xamante ni lu ñëpp di xaar la digg diggante euh, bombardier ak kooke euh, di euh, Balla Gaye numéro 2 foofee ca arène nationale bu Pikine combat boobu rek mbokk yi ñu xamal leen rek wala sax ñu fàttali ke lu ñu fàttali leen euh, lii di euh, bombardier ak Balla Gaye dinañ ko amal le premier euh, janvier atop 2022 moom nag di Mbaye Boy nee nag am nañ expérience si li nga xamante ni mooy grand combat ndaxte ku xam bombardier xam ni bombardier du daw waaye nag dañoo ñëw pour daan koy koy di Balla numéro 2 ndaxte nee na si li nga xamante ni mooy combat boobu rek dox si diggante. jëm ñoom ak Balla Gaye numéro 2 moom Bombardier nag bëgg génnee rek wala sax bëgg jàmmarloo ak li nga xamante ni euh, mooy euh, presse bi moom nag nee na guddi guddi Mbour guddi guddi euh, Mbour avec la victoire en poche nee na nag guddi guddi euh, jour combat ba maanaam le premier janvier deux mille nee na guddi guddi Mbour te dina li nga xamante ni euh, mooy victoire bi foofee ca Mbour ndaxte nag moom xamul luy arrière te xamul li nga xamante ni mooy ragal loolee la Bombardier wax moom nga xamante ni nee na sax du tontu kookee di Balla Gaye numéro deux mais dina ko xamal ni la mu defoon atub 2014 mu ngeeg moom ba léegi wala sax mu ngeeg lu ko gën a raw si atub 2022 bi. bi mais dina defar li ko raw ci atub deux mille vingt deux bi kon euh, bombardier rek mu ngi dànkaafu kooku di Balla Gaye numéro deux kon Balla Gaye numéro deux ba yeboo nga préparé kii di bombardier ndax te bu indi si combat bi rek lu ko raw la indi woon combat bu atub deux mille quatorze kon mu doon boo xamante combat bu nar a neex lay euh, doon waaye nag kookee di euh, Bécaye Mbaye moom nga xamante ni chroniqueur la nekk foofee ca euh, télé bu 2STV moom nag bañ ko fekkee foofee ca États-Unis wax na nag si combat bu dox si diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Bombardier mu doon analyse bu pertinent bu mu def si combat boobee rek ginaaw bañ ko laajee lii di combat boobee rek nee na combat bi nu mu war a doxee rek ça dépend si ki nga xamante ni mooy baa Gaye numéro 2 ndaxte moom rek mooy ut si li nga xamante ni mooy revanche. revanche boobee sax nga xamante ni Balla Gaye da ko euh, yàkkamti woon kon moom rek mooy wane ni carrément am na ay capacité wala sax ay clé yu bu daanee euh, bombardier euh, avec la manière loolu la Bécaye Mbaye wax ndax tax nee na kii di bombardier moom rek amul lépp li nga xamante ni da koy perte si combat bi wala Balla Gaye numéro 2 ginnaaw rek buy lay bëre ki nga xamante ni mooy Aziz Ndiaye dafa war a bëre combat bi ngir Aziz Ndiaye wala sax coach suba ñoom rek fu ñu mënti nekk dañ naan kii di Balla Gaye numéro 2 moo mën euh, bombardier moom rek euh, la ñëpp di wax waa Guédiawaye rek nee nañ euh, bee passé rek sarax la woon comme Balla Gaye dafa war a bëri waale ak loolu waaye nag nee na bombardier moom amul dara lu muy ñàkk si combat bi ndaxte boo xoolee rek jamono ji rek waroon na ari arrêté li nga xamante ni mooy carrière am ndaxte dafa nekk fin de carrière kon moom bu daanoo rek du am dara lu muy perte si combat bi te mun naa amaate moo bëgg li nga xamante rek pour bu jël ko kon mu ñëw ak bu sëkk ngir daan ko kay di bombardier bu mbuur waaye nag kana xam ni bombardier jamono ji jeexalagul xale bu ndaw la dañoo jàppale rek moroom bu ñoom Balla Gaye numéro 2 kon moom Bécaye Mbaye wax na si combat boobu rek nga xamante ni moo faral wax na nag li nga xamante ni mooy euh, violence bi ñuy faral di nemmeeku euh, si euh, arène nationale rawatina si face à face boobu amul foofee ci stade arène nationale bu nekk ca Pikine euh, diggante euh, Ama Baldé ak kii di Modou Lô noonu nag violence nekkul si Ama Baldé yi ñoo war a xam ni euh, lépp li nga xamante ni combat bi da koy yàq rek ñu waruñu ko def ndaxte Ama Baldé moo soxla li nga xamante ni mooy couronne roi des arènes te Modou moo ko yor kon combat bi bu yàqoo rek moom Ama Baldé mooy perte moo la le grand perdant si combat boobu kon na supporter rek xamal ni li nga xamante ni mooy combat jarul sax ñu si def li nga xamante ni mooy euh, violence kon mbokk yi li la indiloon si seen euh, xibaaru euh, tàggat yaram si tey jii rek tombé li nga xamante ni mooy benn 9 décembre atop 2021 kon ba beneen mbokk yi.